عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق طلبت الشيخ عادل من ويقال توحيد ويرجو منكم المسلمين ذكر جامعه yàlla may ko wër waaye yàlla may ko kàttan ba nga xam ne yite gii mu ak kóllëre gii mu wone ak mbootaay gii mu dina mun saa su nekk di assurer mission di Cheikh Baye Adi sama wax ji tey nag xam naa du gudd loolu ñàkk gudd bi nag wonewul ñàkk kontaan wonewul ñàkk yëg-yëg waaye dafay wane rek ne daanaka aw ma lu wax ndax su ma xol moo fees teraanga nee nañ ñu nit waaye dama jàpp ne teraanga bi yem ko wax kenn. te ñëw ay daal yoo xam ne ñu teg seen te kii mooy suñu yaakaar dañ koy ziar waaye tuddee leen na ziar loolu du lu yomb. teg si amul benn yoon boo xam ne kenn ci ñoom yëkkati na téléphone am wala jënd tànkam ñëw ne maa ko yëg ci réseaux sociaux yi gannaaw bi Cheikh Baye woowe balaa muy pare mu yóole ma ne ko waaw cheikh bi na ziar bi ñu ne ma ah kon yéen ko waa ci réseaux sociaux yi laa koy yëg mu ne ma nag soo la du yëkkal la ko sax waaye dama la bëgg a avertir rek ne la taalibe yi nee nañu tuddee la ko waaye laaju na ci dërëm lu gën a daw ma ne loolu. rafet na rafet boo xamante ni damay ñaan yàlla rek xam naa mënu ma ko fay waaye yàlla na yàlla teg ci yoonu di jéem di ko fay. sëriñ bi maa ngi ci sant bi la gërëm ndax su fekkoon ne euh, bëgg nga ba sax loolu moom lu wóor la waaye mënoo ay ma bëgg ba pare mu nekk suñu diggante waaye soo gisee nga wane ci sa xar kanam kontaan te saa yu gisee loolu pédagogie booy joxe di won taalibe yi soppul na waaye sopp na kon dama lay sant di la gërëm ci ba taalibe yi organiser seen bopp recommandé woo leen ko waaye ñoom seen bopp ñu seen analyse en toute indépendance décidé pare na ma ziar yi. yéen i tamit ñi jël décision boobu maa ngi leen di sant bu baax di leen gën. mënu ma leen fay yàlla leen yàlla fay ay yiw yàlla leen yàlla fay ngeen nekk taalibe yu mot te taalibe yu mot mooy taalibe yàlla boo sëriñam gërëm waaye mooy taalibe nag. du yàlla reconnaître taalibe yéen nag xam naa ne loolu yàlla reconnaître na li koy wane mooy yéen nekkul leen ku lenn lu génnee yow. yéen a koy wax bés bu ne. alquran moo naan koo naa àll woon déggoo baax na fi loolu yàlla neen la te yéen nag du ngeen neen. déedéet dëgg la. kon moo tax mu wóor ma ne yàlla gërëm la seen jàng. alhamdulilah. ah man nag la rek laa bëgg a jël engagement seen wet. seen sëriñ bii nee na bëgg ngeen ko. mën naa leen wax ne maa leen di gërëm déedéet. mais d'accord moom. déedéet. ngeen ne fonk ngeen ko. mën naa leen wax ne. maa leen doon. d'accord moom de. léegi yéen a ngeen ko rëy. mën naa leen wax ne. bu ngeen ko yéene lu rëy rëy. man dama jàpp sama xol ak sama xel. mais la mu ko yéene moo yéene. c'est ça c'est ça. feeñ maanaam gars yi daan nañu léegi yëkkati xaalis bu ko wane ci pédagogie ndax pédagogie la du gis tam ndax nit bu alal li yëkkati naa sangam ci mbooloo pour jox ko du gis tal de dafa bëgg a jàngale ñaax nit ñi ñu góorgóorlu waaye man nag damaa tàmm ba tàmm bàyyi leen ko ba léegi du làqatu bu doon feneen wala mu demee neneen kon mu defee souvent li nga xam ne dina nekk daal maanaam bu xandu waaye damaa bëgg ni ngeen yéenee te yéene bi ji yàlla kese ma leen su ma tomb bi tomb boo xam yàlla kese la bu leneen boo. macha allah. naruma ci. def lenn wala wax lenn loo xam ne dafa wute ak yàlla mënul la gaa waaye waxi la euh, mission nag da ngeen ko am ndax président Diagne wax na ko sànq Cheikh Baye Adji dafa am mission bu gis ndax nekk say sëriñu morom jafe la. nekk say sëriñ yu ne rakk ak i doom moo gën a yomb waaye nekk say sëriñ yu ay ñu bàyyi la lu jafe lool lool lool maanaam mooy ay nit yu toppoon sa baay ngir yaakaar ba mu dem feneen ñu ñëw moo tax waajur waaye ñëw sa wet feddali kóllëre defal sëriñ te ñii di sa waajur ñii mot la waajur loolu mission bu jiw sëriñ kon nag yàlla la yàlla lay amiin amiin yaa rabbi ñu nga réussir émission boobu amiin yaa rabbi am nañ ci yaakaar ndax lii rek wane na bu doon boobu ba léegi da nga wane leneen ah kon nga xam ne gars yi dana yëkkati lay gën a jàpp balaa ngay xam ne doon doomu sëriñ tax nga doon sëriñ xoolal rek sëriñ si seen njaboot yaa ngi fa waaye képp ku ci jaar du yoon gars yi danañ la wormaal la mun nga gisee ñu yoon ñaari loxo jaar ci sa sant waajur waaye nag boo weesee sant loxo li leen tax yi tax a jóg mooy yàlla doon képp nekk yoonu yàlla bi ñu wormal la ngir sama bi waaye topp la ngir yàlla doona loolu la buñ ci santee ko bu baax yéen li tax seen mission difficile mooy li wax loolu léegi il faut que ngeen gën a góorgóorlu yoon bi ngeen jël la yaakaar yoon bu baax te maa ngi rafetlu wàllu organisation parce que yoon boo gis su amee organisation bi tamit gën a yore moo tax yéen association lu baax la. alal tamit du diine waaye ci jamono jii ñu toll dafa bokk ci li nga xam ne daf ndax su fekkee ne nit ñi xamul. nit ñi xamul ci pour nga xam loo leen il faut nga woon leen li ñu xam il faut nga def ci àll pour ñu mën a gis loolu. pour que ziare yi nekk ziare yu am jëm ndax am na ci ñoo xam ne ay séeréer yi sax wala ay ndaw tuuta yoo xam ne ziare bu ko amee ay ceeb ay ñeent ak yooyu loolu bu ñëw am na ci ñoo xam ne il faut que ñu teg ko koy rafet du jaare am na ñoo xam ne ñoo yaar ñooñu ñoo leen di indi yooyu yëpp dañ koy defal doomu gaas kon nag dañuy joxe dañuy joxe te di joxe joxe boo xam ne moom la waa jox sant bu benn waay joxe ba xalaat dañ koy joxe jërëjëf ndax da nga war a gëm lépp loo joxe rek sax bopp nga ko defal benn ñaareel mooy dugal ko ci compte boo xam ne ëllëg lañ la koy joxe waaye bu fekkee nag nga am buule maanaam am sëriñ boo xam ne yaa koy defal ngir ëllëg waaye la ne fii tamit di ndax nee nañ Cheikh Adja moo doon sëriñ amul problème kay bu fii moo tax ñuy wax ndax ñun moom ñu yaakaar nañu ba pare kon double compte kon ñu ngi leen di encouragé ci loolu maa ngi tëddal ko di tëjee suma kàddu ci mbay jaam Babacar jaam ndax nee nañ lépp moom koy waxee Diop rek. moom la ñu tolloon dafa gërëm di tëj. moom moo ma xamale xamale ak ak Cheikh Baye xamale maa ngi ba pare ba pare recommandé ma ko ci kanamam waaye recommandé ma ko ci ginnaawam ne ma Aliou bëgg naa di jàppale ci soo gisee mu jaral ma ko yóbbu la ñu def tournée bi yëpp ñëpp gis ko c'est parce que ku la bëgg la ku am ku bëgg lay dem kanam la moo tax te yaakaar naa ko bu baax ndax xam naa xam naa ne boo ko jàppee dina la indil avancement avancement nag ak politicien bi bu ko waxee rek kii la ñuy yaakaar dëgg la ci def ndax bala nga naan daan nekkoon waaye ñun suñu yaakaar tamit mooy yàlla subhanahu wa taala ak diine ji nekk ak yoon bi nga xam ne ñu ngi ba ñu juddoo fekk ko suñuy waajur waaye sàkkat yàlla ba ñuy màgg mu ne ko suñu xol ba may njëkk jël ko maa ngi koy jëlee te mbir la bàyyi Cheikh Tidiane Diaw ñii temps yooyu ñu doon ànd ma jël ko ci man maa lay jàng boobu ñu ngi jàng. Allahu akbar. ak sant yàlla sant yàlla ba ngeen defee jullit muy diine yi gën ci diine yi indil ñu téere boo xam ne moo gën ci téere yi indil ñu yeneen yi ci yeneen yi ah indil na seen seen seen seen moom mooy maa yeewu dafa dama bëggee may informé moom ñu ñëw toujours nag jour nag waaye di ma informé ci calendrier événement yi wax li nga xam ne moo concerné koy bi waaye moo concerné cher Paris bu soobee yàlla lépp lu ne ci mën ci wàllu déplacement ak yow danaa ko def di ñaan yàlla nag saa yi ma ko def rek leneen bu mu ci rafetlu maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaanal yàlla kër gi déwén mais da koy ko feneen di sant dëgg mbay bu baax di leen gërëm ndax mu ngi ñu ngi waaye di ñaan yàlla di déwén bu defee ko feneen rek bu gën a yàqu la ñu déranger kenn temps yu yàgg télé bi bëri neex bi bëri xaalis bi bëri ziar yi sax fii ci la sëriñ bi ñëwaat ñëw di sant di leen sant